leen sargal waaye tamit di leen jaajëfal yéen ñi nga xam ne yéen a safoo di ñu seetaan fii si Equivox TV mbokk yeeg xarit yi nuyu nañ leen amati nag mbégte rek di jàkkaarloo ak yéen saa su nekk nee leen nii lay demee lépp loo xam ne rek jóge na ci làmb ji dinañ toog fii daal di ko waxtaanee faram-fàccee ko daal di leen ko baaxee mais à chaque fois rek mu ci ànd ak ki nga xam ne moo di Babacar Diom Babacar nuyu naa la. Ami Diouf maa ngi lay fay. ci loo nekk. sant naa yàlla yaa ah, yaa ngi ree de ah. ah a waaw loolu moo waral parce que ku jàkkaarloo non man moom chaque jour maa ngi si maa waaw gi la waaw moo tax xam nga ku jàkkaarloog téléspectateurs yi ñu lay suivre di la mm. ñaanal di la mm-hmm. encourager faaw nga jàkkaarloog ñoom dëgg jàmm mm-hmm. ñun la paix rek toujours la paix avec j'adore kontaan continuer toujours wow, la avec, paix avec diwlin bu sell bi. voilà j'adore boobu diwu or bi du mën a ñàkk <laughs> am na solo. Mm-hmm. voilà bu baaxee ñun seetaan yi nga xam ne moo di revue bi daal di leen si waat. asalaamualeykum wa rahmatullah asalaamualeykum wa rahmatullah jeudi 20 mai 2021 dañuy ñëw ak yéen ci yëglikaay yi sunu lamb la ñuy xëy dooreete ko yëglikaay bi di sunu lamb tey xëtam mu njëkk nag lëm ca xëy fësal lenn la maanaam combat bi nga xam ne moom moo dox ci ka nga xam ne nii moom moo di le roi di simpi di guy gi mu géej way ak ka nga xam ne nii moom mooy jinne caaro ji di rëg comme ni nu koy wooyee mel ni ki nag ñoom ñaar fi mu nekk nii day soo bëggee dégg dëgg nag ñu nga dox nag jëm ca yoonu combat ba ndax sunu lamb tey xëy na nu xamal na daal soo bëggee dégg dëgg daal kàddu yu njëkk ya nga xam ne war nañ ko seq sànnente ko kañ lay doon yëglikaay bi ne na dimanche fa muy amee nag mooy ca biir studio TFM yi daal fa lañ fas yéene woo ñaari mbër ya dong ñu jàkkaarloog waa TFM wax ak sénégalais yi wax ak seeni supporters waxante ñoom ñaar ku ci ne la nga fas yéene def sa morom muy premier jàkkaarloo boo xam ne daal mu ngi door a am ginnaaw ba combat bi taxawee ba tey sunu lamb moo xëy tey ñëw wax nu lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne ni moom ab jàkkaarloom ak tafatin la ñuy dox mbir ma tëra taxaw yëglikaay bi ñëw na ca mu mel ni ki nag am na ca làqatu muy Bombardier yëglikaay bi sunu lamb moo xëy tey ñëw wax nu ko keneen koo xam ne nag mook Bombardier moomu mas na noo laale muy Gris Bordeaux mu faas yëglikaay bi ne daal Gris Bordeaux daal ah maanaam ndax première victoire am bu njëkk ca géejawaay maanaam daal la yëglikaay bi xëy tey samp ci ab laaj ndax dina ko am ci diggante Balla Gaye ci combat bi nga xam ne moom moo dox ci digganteem ak moom ñu war ko bëre nag 2022 sunu lamb moo xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne ni mer ba futtu la def bokk na ci ñi encadré Gris lourdoo moomu muy Ibra Mbaye ñamu mere nag bokk na ci seen bi daal jàpp na ne day maanaam ber ganu ko ber génne ko ci équipe nationale équipe bi nga xam ne ni mooy équipe de Dakar bi nga xam ne Ibra Mbaye ay at moo ko yoroon di ko coaché Ibra Mbaye daal jàpp na la ñu def lu ñaaw munu koo passé ndax nag jàpp na ne ñoom amuñu reconnaissance maanaam daal purux la ñu du ñu gërëm ñamu daaw ndax Ibra Mbaye nee na fa ma jaar ak ñoom jaar fa ak équipe bi région de Dakar masta am ndam lu jëm ci dara chef de l'État ma fexe ba andil leen ko ñu génne ma saaru génne bi moom jàpp ne la ñu def jëf nañ jëf doo xam ne daal jëf ju ñaaw a ñaaw la teyitam daal daa jàpp ne ju jëf moom lu ko betta bett la maanaam daal purux la leen Ibrahima Mbaye jàppe ñoom ña nga xam ne ni ñoom ñoo équipe de Dakar ba rawatina nag ñiy doxal làmb ji fii Ibrahima Mbaye moo xëy tey waxee nu mel ni ki noonu feneen foo xam ne ni moom des fay bëree muy fa nga xam ne ni moom mooy arène nationale ba maanaam lamb fa lay amee daa mel ni ki nag fi mu nekk nii daal soo bëggee dégg-dëgg moom su mbëree ñëwut bëree si kat ya ñu tëgguñu kat ya feccuñu maanaam amateur seetaan ñu mbëtt ya moom daa ni ñoom itam daal ñu ngay xëccoog amateur ya arène ba maanaam daal bang yu neex yooyee ak tribune ya mbëtt fay taxawaalu ñoom tamit di fa def seenum po mu mel ni ki yëglikaay bi xëy na tey ñëw nu wan aw foo woo xam ne daal démb la mu mel ni ki nag mbët mañ fa jàpp daal mbët ma foofu takk rëyaay ga weesu na ko ca biir arène nationale ba daal moom mu di fa jalaañoo xam naa nag beñ bu neex booba moo tax parce que arène ba moom ku ne xam ne suuf sa nooy na nepp te mbëtt day bëgg yu mel ni ki noon rawatina bang ya su sunu làmb xëy tey ñëw wax nu lu mel ni ki noon keneen koo xam ne ni moom mbër la di doomi joof yor loo ci mën a dégg ñu naan ko Ibou Ndiaye Obali mel ni ki nag moom jàppal la 14 bala la 17 mais bi nga xam ne ni daal moom moo amoon lamb ca fim la mu mel ni Ibou njaay Obali daal lan fa tegoon moo ko jël de yëglikaay bi xëy na tey ñëw ci lu mel ni ki noonu dina ko wax yëglikaay bi di sunu làmb moo xëy tey ñëw wax nu lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne ni tamit maanaam daal yëglikaay bi xëy na tey ñëw ci moom mooy Mor Mbay borom ngéwél gi production Mor nag moom la mu fas yéene initier daal benn tournoi spécial la boo xam ne daal maanaam daal la fas Sénégal moom Mor Mbaye borom ngéwél gi production yëglikaay bi di su lamb moo xëy tey ñëw wax nu lu mel ni ki noonu si di jaxare tamit daa mel ni boo bëggee dégg dëgg daal décroché na combat boo xam ni daal bu neex a neex a neex la yëglikaay bi xëy na tey ñëw wax nu ko moom sunu lamb combat ba nag mu ngi war dox ci diggante si tabu Kaolack ak brise de mer mi ngeen xam mu nekk fii nga xam ne nii moom moo di ca Grand Médine bi moo xëy tey ñëw wax nu lu mel ni ki noonu mel ni ki daal fi mu nekk nii kon soo bëggee dégg dëgg daal mbir ya mu ngay dox rawatina lamba ja buñ fa jógee na dañuy dem Equivox mel ni kii nag kan fa fekk ci wàllum maanam karaté lay yëngatu muy Mohamed Ali Ndiaye ak ka nga xam ne maître-am la jàngal ko muy ka xam ne ni moom moo di Babacar Ndaw moom daal ka xëy di dànkaafu foofa moo di Balla Gaye nee na tey ci mbiri Boy Niang ndax nag su ko defulee nee na Balla mën naa am lu ko bet du samay wax nag ka nga xam ne daal xam daa jëm ci wàllum karaté ak nu nuy dóoree ko weqe moom xëy di wax fa nga xam ne ni moom moo di ca biir Equivox yëglikaay bi moo xëy tey ñëw di lu wax lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne nii moom yëglikaay bi ñëw na ci moom muy Modou Awa Tine ka xëy di dëkk nag ca tuus ya du kenn ku baa booy moom daal la xëy sampal am ndënd di ko dëkk yëglikaay ba xëy na wax nu ko Mouhamed Diop borom jaay mons production itam taxawal na beneen combat boo xam ne combat espoir la ba tey mu ngi ca tuus ya daabu Texas daal la boole ak sang ma ngeen xam yëglekaay bi xëy na tey ñëw wax nu ko ondu la fu moom sunu làmb war nañ ko ba tey ca tuus ya mel ni ki nag moom maanaam ka ko dalaloon du kenn ko dul Bougane Gueye Dany ma nga xam ne moom mooy njiital gëm sa bopp waaye ki nga xam ne nii moom maanaam ci célibataire la nekkoon ba nu xëy may ko borom kër muy soxna may fay madame Diouf moom nag soo bëggee dégg-dëgg la ko commencé la trois jàpp bala quatre bii ñu jëm daal maanaam ca la fas yéene nag def aw xewam di ak céetam fa nga xam ne nii moom moo di ca mbomboy mbomboy gan kër ngoon Sarr kon soxna may séeri jib loolu lay def la 4 juin bii nu jëm maanaam soxna may fay madame Diouf kon daal loolu yal na ko ci yàlla defal barke waaye nag dinaa ci profité waale li olof naan ndàqum gi naan wax sa soxla comme man ay célibataire dong laa jàkkaar lool rawatina gumis taalibe Bamba ka nga xam ne moo ne Ami Diouf bu gay njaay xulle mu bàyyi ñas kon yéen ñetti ñii jéem leen a jam itam xoolaat seen bopp jéem a fas ami yow itam nga wut ko la fas am na solo allahumma amin yal na ñaan ñi nangu dégg nga waaw borom kër fi nekk nii oh. gomis dem leen takki xulle yéen ñëpp dem leen takki wax na leen dëgg nag hmm. yow itam ñu takk <laughs> mais ñoom laay waxal de waxaguma sama wax. ah kon baax waaw kon ma déglu ba nga. waaw déglu ma rek man. Hmm. voilà ñu ah. daal di tàmbali dégg nga. Ah. suñu làmb lañ koy euh, tàmbalee ci xëtam bu njëkk tey Babacar lañ fa gis rek moo di rëg rëg ak guy gi seen euh, première face à face war a nekk tey ci euh, non dimanche incha allah. ca TFM. Mhm, ca waaw mais balaa may dugg foofu damay waxaat rek comme li nga fi nga fi nga ubbee léegi. maa ngi leen di ñaanal yàlla yal na leen yàlla may ay. borom kër loolu laa leen di ñaanal parce que xam nga sama gars yi ay góor yàlla lañ te ay mhm. lañ te góor moom buy liggéey rek jàppal ne mhm. soxna mu ngi ci moo xam gomis la moo xam xulle la moo xam yàgg maar la yéen ñëpp yow tamit yàlla kër bi gën waaye ki ma mujjee tudd noonu ci rëfi bi da di sama rakk di sama jarwaat di sama doom muy mm-hmm. soxna May mm-hmm. Fay madame Diouf mm-hmm. Seydi Djib Diouf mu war a war mu war a war comme ni ñu koy waxee le 3 juin ñu war ko céetal le 4 ca mbomboy kër Ngon Sarr ma ngi koy ñaanal sëy boobu yàlla na ci yàlla def barke soxna May di ko am taalibe di ko yaru vraiment bari jàmm lool man ngi koy nuyu di nuyu doomu ndeyam say kama du mën a ñàkk di nuyu waa Mbomboy yëpp rawatina waa kër maa Mbomboy reefan sama waa kër nijaay ngomeen yi maa ngi leen di bégg di nuyu képp ku dëkk Mbomboy mhm. comme fi nga wax nag guy gi ak mm, mu mel ni bataay bu njëkk bi jàkkaarloo bu njëkk bi dimanche TFM mhm. waaw loolu mu defe naa ñu ngi ko doon xaar mhm. parce que tamit defe naa bu combat bi taxawee ba tey yaakaar naa ne ñoom ñaar bokk guñu benn taabal waxtaan il est l'heure nag xam naa comme régulariser nañ combat bi ba am date léegi nag dafay jot xam nga combat moom lu wax ji bëri bëri bëri bëri bëri fekk régulariser wuñ ko au niveau du CNC rek da dul leer mais buñ demee nag ba CNC ñu régulariser làmb ja ba jàpp date bi nag yow promoteur bi bu keroogee nag am nga droit programmer say jàkkaarloo defe naa ne waa GFM loolu la def ci njiital ka nga xam ne moom moo nekk ca boobu di doxal kuréelu làmb ji foofu mhm. di Mao Cissé mu koy nuyu di ko ziar di ko yaru di ko am taalibe mhm. maa ngi leen maa ngi xam ne daal euh, xalaat naa daal ñaar ñi bu ñu jàkkaarloo di gis face à bu neex parce li tax mooy rëg-rëg ku ne xam na ne moom ay waxam du ko làq mhm. waaw moom lébu la li ne ci moom lay wax amul ma dem te ñëw guy gi ab kajoor kajoor la ndax cene ba la wax ku ko xam-xam ne sañ-sañ bu bëri moo ko indi tey fi mu nekk ci làmb mhm. ci bu waree ak yow day wax ak yow su waree bëri ak yow day bëri ak yow mhm. kon yaakaar naa seenub jàkkaarloo moom ci biir TFM mhm. ku yebu xaar xam ne dimanche da nga gis lu neex a neex a neex insha allah rabbi am na solo euh, bi ñu jógee foofu ñu daal di seet rek ki nga xam ne moo di B52 di Bombardier ñoom nag euh, seen combat bi nga xam ne démarché nañ ko muy revanche bi contre Tapha ba léegi rek euh, mbir mi sotteegul ci côté Bombardier nag lay tardé waaw euh, loolu daal raison yi tax yëglikaay parce que li liñ ci mën a jàmm jàngal rek xëy na moom mhm. dafa pareegul pour bëri ak tafaatin mhm. wala xëy na bëggul jël ñaari avance comme ni ko ñeneen ñi defee mhm. xëy na moo tax waaye Bombardier moom nit du leen dafa ragal ah, ci làmb noonu loolu moom yàlla dindil na ko ko Bombardier ragal la ci làmb moom kenn du ko wax waaw dañ naan kay fitam daa ëpp loolu moom moom moom la wane moom la ko sénégalais di seedeel waaye nag sportif la professionnel la xam ne li muy def ndax mu ngi jongante ay au niveau international sax ci MMA yu mel ni ki noonu kon defe naa tey bu ko proposé tafaatin ci boo koo xam ne dafa la gagné woon moom yaakaar naa ne soxla na combat boobu mm-hmm. waaye nag xëy na am na ay raison yu tax ba tey combat bi taxawagul loolu nag xëy na digganteem ak boppam la ak mm-hmm. staffam na ak promoteur bi lu ci mënti xew rek xam naa ne mook tafaatin mm-hmm. ku leen tëggaat itam da nga ne bëgg naa fayu du ragal Instagram bi moom da ko da gis mu caméra boppam <laughs> <laughs> so mooy loolu am na solo <laughs> baax tamit uh-huh. Uh-huh. Uh, bu jógee foofu ki nga xam ne moo di uh, combat Balla Gaye 2 contre Gris Bordeaux mu mel nii nag Gris fi mu nekk nii dafa taxaw daal temm pour am euh, victoire am fële ca Géejawaay première waaye waaw loolu la sunu làmb xëy tey samp mais bon defe naa ne loolu mooy li mu bëgg mhm. parce que itam loolu moo tax mu jël combat parce que lu mën a xew daa ñàkkoon digganteem ak Balla bu njëkk ba mhm. ci naa tey bu ñu dikkaatee li muy soxla mooy fexe cee am ndam mhm. dul nag man ta yomb nag parce que ah, xam naa ne ki mu ko séqal moom la bar bi bëgg muy Balla Gaye ah nekkul koo xam ne nii ah du mbër moo xam ne nii moom dañ la naan da dem ci moom ñu la combat bu yomb kenn du ko wax mm-hmm. kuñ ko wax ndax nañ la kon Gris ci lu metti la jëm waaye nag quant à Guédiawaye ndax première victoire non parce que Gris Bordeaux daan na Lac de Guiers numéro un mm-hmm. te kooku écrit waalo la bokk te waalo base mooy Guédiawaye mm-hmm. yaa ngi dégg kon xëy na waaye nag euh, xëy na loolu mën nañ koy xaw a fàtte tuuti ma defe naa ne loolu ci stade Demba Diop la amee woon waaye loo ci mën a dégg daal revanche boobu moom itam dana métti lool bu buñ ca yeggee ndax xam naa ñaari mbër yi xam naa Gris bu baax xam bu baax ay borom sañ-sañ lañ. Mhm. waaw. Euh, Ibrahima Mbaye mise à l'écart par le CNG mu ne daal moom fi nekk nii euh, daf dañ ko euh, kii daal dañ koy écarté waaw waa CNG dañ koy écarté ba pare xas na leen nee na daal ils ne sont pas du tout reconnaissants ba pare moom nee il est il est dessus ci wolof mooy. waaw maanaam waa CNG amuñu reconnaissance. ba pare moom ci boppam. dañ koo wàccee daal. reconnaissance daal su ma ko mënee wax ci olof mooy ko wax maanaam ami tey nga may ma 1000 francs ma faj samay soxla. ba pare suba ëllëg ma génn. nga wax la lu boobu ko dog noonu. yàq sa daal fekk defaloon naa la daal mhm. waaw li ma koy wax daal mooy moom Ibra Mbaye parce que ku ne xam na ne équipe mhm. parce que li ko tax di wax bu pour pour ñu ñuy seetaan ñu comprendre. Mhm. Ibra Mbaye équipe de Dakar bi nga xam ne nii dafa bokk ci équipe yi jongante drapeau chef de l' moom moo ko yore at yépp moo koy doxal. nekk seen entraîneur. yaa ngi dégg di dem ay tournoi ñu di ko gagné muy dem di ko gagné ba di mujj am. yaa ngi dégg mu finaalu ko gagné ko. muy nekkul lu njëkk ci région de Dakar. mosuñu ko am wax dëgg yàlla moom ci bi mu nekkee course ci lekk ko gagné. yaa ngi dégg drapeau solitaire nag daaw amu ko ndax corona bi ren la war a am ca Kaolack ah ci fan yi ñu génne la gis ne wax wàcce nañ ko. Mm. léegi kañ fa teg moom mooy Ndiouga Dia moom moo jëlee mooy moom a jël euh, équipe ba léegi Ibrahima Mbaye ñu wàcce ko mhm. ah, comme li mu wax nag ne amuñu reconnaissance man ah dama koy wax ne ko rek euh, est-ce que euh, jar na sax muy wax loolu jaru ko parce que xam lu tax mhm. yow yaa fi nekkoon ñu tegoon la fa wóolu la pour nga di liggéey dem nañ ba gis na xëy na bëggatuñ nga liggéeyal leen mhm. nga nga jox leen seen i jox leen seen ay lenge te dem rek comme noonu mhm. mais jërul sax waxante parce que moom ndax xam ne moom Ibrahima Mbaye mhm. am na lu mu doon ci làmb am na lu mu lu ko ko yàlla dénk ndax defe naa ne ay at nga yore ko euh, équipe di ko doxal di ko doxal ba xëy gagné tournoi ba defe naa ne kon bu mhm. amu kon xam-xam wala liggéeyoo du du demee noonu waaye nag pour man na lépp rafet rek na lépp rafet ñu reconnaissant ak ñu bañ reconnaissant yépp moom pour man na boole lépp Mm-hmm. bàyyi noonu mu sedd parce que Sénégal la te ñoo ko bokk mm-hmm. te defe naa ne itam tey làmb mu ne su cee wax te mm-hmm. doo ci tudd turu Ibra mbay parce que loolu ci écurie Fass ba mu bokk nekk fa encadreur yaa ngi dégg bokk ci làmb Dakar itam tey histoire am ci drapeau chef de l'État Ibra Mbaye marqué na ci empreinte am ndax premier médaille d'or bi Dakar am ci drapeau chef de l'État moom moo leen ko jox hmm. waaw waaw kon na ñaanal ñi nga xam ne ñooy dem hmm. ñu ñu def ah, euh, lu kii rek parce que loolu mooy àddina mais nag nit tamit euh, euh, des fois ami hmm. man ak yow a si yem ñëpp ay nit lañ des fois am na loon bu la arrivé sur le coup di nga benn réaction waaw am am am na ci droit tamit waaw Eh, fële ca arène nationale mbëtt yaa fa nekk di wulee ñaay loolu la journal bi bind tey di jaagu mbaat <laughs> mbëtt yaa ñu ngi fay wulee ñaay est-ce que du jinne yi tamit jinne yi ah doy na waar de <laughs> di yéeme na ba day dama la ngoon dem ci jinne rek man xam na waa xamul jinne mbëtt nag xam naa waaw yow xam nga mbëtt ah, mais jinne est-ce que mën ta soppaliku mbëtt tamit waaw xam nga man xam nga man mbiri jinne yooyu yooyu na ami nañ wax ci mbëtt yi rek moo gën a xam nga ay jinne yooyu day doy waar nañ fi ay jinne démb moom déet man waxu man man day wax man day ay mbëtt laa gis dangay bañ jinne yi topp non dama man dama xamut yooyu ngay wax di man ay mbët mbët laa xam doo xam nga mbët ah xam naa mbët fu muy nag ay mbët ay bar yooyu yëpp xam naa signal hmm. ba lañ lañu jël mbët ca kaw loge ba ñoom daal am nañ ah, ma ñu ma doon waaye daal mbët daal laa gis ñu téye ah. waaw mbët nag moom ca sama ko xaman Babacar la ma xamoon ci mbët moom uh-huh. euh, maanaam bu yàlla defaan ñu nekk ci nawet uh-huh. yaa dégg dégg naa euh, buñ la daan xas sax dañ la daan xase naan la nga mel sa jeexaay wala sa waay bi nga mel ni mbëttam noor xam mbëttam noor du lekk ah. aw xeer rek lay wan tëdd oh. du lekk dara noonu lay nekk war naw xeeram tëdd tëdd tëdd yàlla bu bët sébee nag ba yàlla ji taw mm, ba affaire yi sax mm-hmm. yaa ngi dégg mu commencé ci génn dank mais su affaire yi ñoree nag ci lay nag fuuy waaw waaw bu demee ba gerte gi ñor mu mën a lekk gerte lekk ci ñebbe ji mm. da koy gis mu toll nu ko neex ah, ñun jamono yooyu lañ koy rëbb. mais a mbët dañ koy lekk de ah. ah waaye man ah, eh, man lekk mbët ba taay. waaw man rëbb naa mbët ba taay dem jàpp. <laughs> waaw ah, mu def naa ko ba taay fële ci ci ci ci suñu àll ba ak yaay ak dëkk yooyu ko wër ay mbombo ak i ndondo hmm. dañuy jàpp mbët mais nag heure boobu lañ koy soxla xanaa daw ni jador bi nga koy saafee boo ko saafee jamono yi sax de ku jàpp ku jàpp mbët lool jàpp mbëtam lolli mbëtam lollee fi dàq boo ko booleeg jador bii <laughs> allahu akbar loolu deesu ko defar <laughs> lu doy waar la ah. waaye nag loolu lépp li koy wane rek xam naa ne comme xam nga arène nationale bi li ko wër environnement bi dafa ah. bëri lu tooy mhm. am ndox ak am ñax parce que fi ñu ko def la dañ ko mhm. def ci biir kii bi nu mu tuddati euh, ci waaw waaw foofu damay mhm. fàtte turu kii bi foofu ñu ko def daal l'essentiel que dafa bëri ndox dex nekk côté mm-hmm. yooyu loolu lépp di zone boo xam ne ni wax dëgg yàlla ku ne xam ne ne laataa ñu fa def arène nationale ay tool la woon ñu fay bay mm-hmm. te ba tey tool yi am na tool yu fa des ndox maa te tool yooyu fu mu ne ay mbëtt ak yooyu dañ fay na xam naa loolu nag moo tax mbëtt mi mm-hmm. fexe ba dugg fa rek waaw toog di seetaan ah ma am kaw kaw la xam naa ne moom bii nga ko mujjee. bii li ma ci tànn defaral ci ci korite gi doy na war yàlla mi ci xam ne wóop a ñàkkam sa gémmiñ a ñàkk Zadora fi ne yow. am na solo bu jógee foofu nag gala de lutte eh, fële ca Fimela 14 ak 17 eh, mai incha allah Obali moo daal eh, remporter li nga xam ne moo di tournoi bi. waaw ñu koy féliciter ndax Ibou Ndiaye Obali moom defe naa tey ci Sénégal bu ne laa gagné du information lii information bi kay mooy éliminer nañ ko ndax li tax mooy actuellement jamono ji mu toll nii vraiment mu ngi wane boppam bu baax baax mu ubbali nekk mbër moo xam ne tamit séréer si bëgg nañ ko lool amateuru lamb yi bëgg nañ ko ndax saf day anime lamb te bu ñëwee du tricher day bëri Mhm. vraiment ñu koy féliciter ci tournoi boobu mu gagné ca Fimela. Mhm. Euh, ki nga xam ne moo di Sidi Diakhaté mu mel ni rek décroché na une belle affiche. Euh, mhm. diggante site bu Kaolack. ak nga xam ne moo di brise de mer le 10 juin à Kaffrine. waaw loolu loolu am na solo trop. ba Sidi Diakhaté di nekk koo xam ne tamit vraiment mu ngi jàpp ci làmb di décentraliser. parce que am na solo xam nga tey jëlee làmb Thiès wala Dakar yóbbu ko ba Kaffrine jox waa Kaffrine affiche bu mel kon daal ñu ngi koy ñaanal le 10 juin boobu. yàlla na ko réussir moom suñu papa si di jaxate. ki nga xam ne moo di euh, Mor Mbaye moom itam daal dina initier rek euh, weekend mbapat xam sa mère moom la tuddee boobule tournoi. waaw lu am solo. mooy muy sunu waay. Mhm. Mor Mbaye borom géwél gi production di ko baax. Mhm. defe naa ne moom tamit loolu mu initier initiative bu am solo la. Mhm. weekend mbapat xam sa mère am na solo waaw parce que maire yi dañ leen a war a xam. parce que maire bu na ci commune. waras na laa xam loo fay def loo fay jariñ parce tamit. teguñu leen fa pour ni meuble rek mm. dañ leen fa teg pour ñuy toppatoo askan wi ci seen ay besoin seen i soxla ak yooyu kon defe naa bu initié boobu tournoi di ko def ci ay weekend ñu ngi koy ñaanal moom mooy Mor Mbaye Ngéwél gi production yàlla na réussir loolu ñu ngi xamal ne programme bi euh, ñi concerne mooy euh, les écuries de des seize mouvements de Dakar waaw kon am na solo daal na ko yeggaleeg jàmm amiin waaw du mën a ñaan euh, yooyu la xibaar suñu baax doon wax rek yal na yàlla tàppe xol yi te dégg na ci ay waxam itam daan na wax ne mm. ah gaal boo ci nekkee mu ne ci biir géej bul mm. ñaan ami sa ëmb mucc mais ñaanal yàlla gaal gi mucc su gaal gi muccee ëmb yépp mucc yow nga muccaale mm-hmm. kon yal na yàlla def gaal gi mucc mm-hmm. sunuy ëmb mucc sunu lépp mucc ñun ñépp ñu mucc loolu la ñuy ñaan mm-hmm. te jàmm dégg naa ci mag ñi ñuy wax ne si Amadou Bamba doon na wax ne amul lu ko gën àddina mais amul lu ko gën ëllëg yowmal xiyam kon yàlla nañ yàlla defal jàmm saa su ne yaa ngi dégg ma déggaat meneen mag muy Cheikh Serigne Cheikh Al ma moom yàlla na yàlla yokku leeram mu ne yàlla na yàlla yàlla na yàlla am ci ñun ñewent jamono bi ñuy dund te yërmande ji mu xaare nu ko ba suba maanaam buñ ko wuyu jee yàlla na yéex te lu am solo la maanaam ñewent bi ci àddina yàlla nañ ko yàlla defal waaye yërmande ëllëg buñ ko wujjee yàlla na yéex mm-hmm. yàlla nañ jot ci yërmandeem foofa sëñ Cheikh moom moo wax lu moo ñaan loolu moom itam muy ko amoon solo ci réew mi mm-hmm. di nuyu ñëpp ñi nga xam ne nii ñoom ñooy lu sénégalais yi rawatina ñi nekk ci diin islam bi ak ñi nekk ci diine christianisme bi mm-hmm. di ñaan jàmm yàlla na ko yàlla def Sénégal waaye di wax ak ni daal Zador moom mi ngi feeg ñëw ah, daal ah tuuti de. kontaan continuer du mën a ñàkk de <laughs> diw gaa ngi nii de wallaay du mën a ñàkk waaye kenn du suñu bokk téléspectateur ñoom kenn du ñoom maa ngi leen di bëggee saa su ne ah, solo rawatina tamit sama fans club 100 pour cent Babacar ndax man du ma ne sax dama am sa fans mm-hmm. club dama naan rek samay mm-hmm. soppe parce que loolu parce que dañ ma sopp par rapport ak lu may def ñoom Grand Laye ñoom Jiga ñoom mm-hmm. Cédric ñoom Pape Ndiaye Mass Ndiaye Baye Zal ñoom ñëpp su ma limee dinaa juum maa ngi nuyu ce que dem xam naa daa sa nag korité dégg naa boo demee ca soxna sa kenn du la léegi bàyyi si yi seetu Seex Bas <laughs> am na solo mm-hmm. voilà Babacar fi la ñuy daal di yem tey rek ci xibaar yi di leen jox dig daje ëllëg incha allah ci beneen numéro jërë ngeen jëf